ci ndigalul sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne moo fi toogee jataayub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ñuy ñaan nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ñuy yëkkati kàddu yi ci ndigalam. nee na ñuy yëkkati kàddu yi ci ndigalam. ak ci turam. ak ci aw turam. ci ñu ko waxee ci làmmiñam. ci ni nga xam ne noonu lañu ko waxee ci aw làmmiñam. ñu fas yéene. ñu fas yéene. waxe ko noonu doonte mënuñu ko it. waxe ko noonee nag doonte mënuñu ko it. ndax ko leerale. nee na ndax ni mu ko ko leerale. leer na nañ ci sama xel. leer na nañ ci am xelam. waaye yàlla na ko sama làmmiñ mën a tudd. waaye yàlla na ko yàlla dimbale nag ba aw làmmiñam mën koo tudd. kon ci ndigalam lay nuyoo mboolem chef de village yi fi teew yëpp. nee na kon ci ndigalam lay nuyoo mbooleem chef de village yi fi teew yëpp. ak mboolem délégué de yi. ak mboolem délégué de yi. muy xamal ñëpp ne. nee na muy xamal ñëpp ne. ginnaaw boo xamee ne. ginnaaw boo xamee ne. Cheikh Mouhamadou Mountakha. Cheikh Mouhamadou Mountakha. mi nga xam ne. mi nga xam ne. moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf. moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf. bi mu fi accès. bi mu fi accès. ci jataayub Serigne Touba bi. ci jataayub Serigne Touba bii. def ko jëwriñ ci yoon wi. def ko moom mii muy jëwriñ ci yoon wi. ci lépp lu aju ci yoonu murit. ci lépp loo xam ne moo aju ci yoonu murit. mu def ko muy jëwriñam. mu def ko mu cay jëwriñam. mu wëlbati ko dénkaat ko liggéey bii. mu wëlbatikuwaat nag denkaat ko liggéey bii. moo tax mu fas yéene. moo tax mu fas yéene. moom ni muy ànd ak nit ñi. moom kat ni muy ànd ak nit ñi. la leen bëgg a leeral. la leen bëgg a leeral. donte ñu bari xam nañ ko. donte nag ñu bari xam nañ ko. waaye mu génne ci làmmiñam. waaye nag mu génne ci aw làmmiñam. ba ñëpp dégg ko. ba ñëpp dégg ko. loola it mooy muy xamal ñëpp ne. loola it moo di muy xamal ñëpp ne. ci dëgg rek lay ànd nit. moom de moom Serigne di ci dëgg rek lay ànd ak nit. nee ci dëgg dëgg dëgg lay faral. nee na fu mu mën a nekk dëgg rek lay faral. أموتيكي أموتيكا. دعناك خامه أموتيكي أكيه نيدعناك. ليدعك نس شيخ عبد الله بكر عبد الله بكر دفندك. نولا فسيني. نولا لا فسيني. كونوا مع الحقي كونوا مع الحق. مهما كلفكم الأمر. مهما كلفكم الأمر. ما تخمي خمن يبني. ما تخمي خمن يبني. دخيني خمني. دخيني خمني. bi ko sëriñ bi denkee liggéey bi. bi ko sëriñ bi dénkee liggéey bi. fas na ko yéene dox ak yéen. fas na ko yéene dox ak yéen. te ànd koog yéen. te ànd koog yéen. moo tax mu jox ndigal. moo tax mu jox ndigal. sëriñ Abdou Lahad Jaxate. sëriñ Abdou Lahad Jaxate. mu woo leen moom mi nga xam ne. mu woo leen moom mi nga xam ne. mooy njiitale chef de village yi. mooy njiitul chef de village yi. ci dëkk bi ci dëkk bi. muy xamal ñëpp ne. muy xamal ñëpp ne. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. aju na ci titre foncier bi. aju na ci biir titre foncier bi. muy ci dëkk bi. muy ci dëkk bi. jox ko ndigal. mu jox ko ndigal. di wax mboolem chef de village yëpp ne. di wax nag mbooleem seef de village yëpp ne. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. bëgg na. bëgg na. li tàmbalee ci bisu tey. li tàmbalee tey jii ci gaaw bi. ilaa macha allah. ba fa nga xam ne fa la ko soob yàlla. lépp lu ci nit defati. lépp lu ci nit di defati. na leer. na leer. te tam teg ko ci dëgg. te mu teg ko nag ci dëgg. nee na bañut ku jaay suuf. nee na bañut ku jaay suuf. terewu ko. terewu ko. waaye kuy jaay. waaye kuy jaay. na nga jaay loo moom. na nga jaay moom. chef de village buy seere it. chef de village buy seere it. na seere lu leer ci moom. na seere lu leer ci moom. ba bu ëllëgee. ba bu ëllëgee. lu ci mën a xew. lu ci mën a xew. bu koy lijjanti. bu koy lijjanti. xam ka yor responsabilité ba. xam ka yor responsabilité ba. kon nee na mi ngi leen xamal ne. kon nee na mi ngi leen xamal yéen ñëpp. yéen ñëpp. na ngeen jël seen responsabilité. ngeen daal di jël seeni responsabilité te moom xam ne du far kenn ci tooñ te xam ne kat moom Serigne Sidi du far kenn ci ak tooñ waaye nag ku ne ci dëgg waaye nag ku ne ci dëgg loo néew néew doole loo néew néew doole yow la àndal yow la àndal kon nag loolu kon nag loolu mi ngi leen koy xamal mi ngi leen koy xamal di leen ci soññ di leen ci soññ bëgg ngeen gën a góorgóorlu bëgg ngeen gën a góorgóorlu te xam ne dëkk bii te xam ne dëkk bii Serigne Touba moo fàggul képp ku fi dëkk Serigne Touba nag moo fàggul képp ku fi dëkk kon nag ku yàlla defal tawfeex kon nag ku yàlla defal tawfeex ba nga ne ci dëkk bi ba nga ne ci dëkk bi. tam fàggul la àdduna ak alaaxira. tam fàggul la àdduna ak alaaxira. li la war rek. li la war rek. mooy wéy ci ndigal yi. mooy wéy ci ndigal yi. coba bàyyi tere coba ca bàyyi tere yi. te xam ne ndigal yi boo ci saxee. te xam ne ndigal yi boo ci saxee. mbooleem li ngay bëgg dana la fekk. mbooleem li ngay bëgg dana la ca fekk. boo dawee tere yi it. boo dawee tere yi it. mbooleem li ngay bañ. mbooleem li ngay bañ. da nga ca mucc. da nga ca mucc. kon nag sëriñ bi. kon nag sëriñ bi. ñu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba. noo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba. suñu borom bàyyi la fi. suñu borom bàyyi la fi. nga yàgg ànd ak sa kilifa. nga yàgg ànd ak sa kilifa Cheikh Mouhamadul Mountakha. te yéen ñaar. te yéen ñaar. seenub liggéey. seenub liggéey. ñëpp dal nañ ci xel. ñëpp nag dal nañ ci am xel. ñëpp la ci seen jort rafet. ñëpp it la ci seen jort rafet. rawatina. rawatina. njabootu Serigne Touba yi. njabootu Serigne Touba yi. kon ñi ngi ñaan mu yàgg lool. kon ñi ngi ñaan loolu yàgg lool. ba li ngeen bëgg a liggéeyal Serigne Touba. ba li ngeen bëgg a liggéeyal Serigne Touba. te ànd ko. te ànd ko. ñëpp topp seen ginnaaw. ñëpp topp seen ginnaaw. ngeen mottali ngeen mottali nu kawe seen jort. nu kawe seen jort. bismillahi rahmaani rahim. Serigne bi noo ngi siyaare waat di jokkul waat li nga doon ci ñépp ndax bis bii boo santaanee ñu woote ko ñépp ñëw ci turu mbooloo mi noo ngi lay sant bu baax a baax mag kàddu yi ñu ci dégg nag lu leer nàññi la lu matale la loo xam ne jëf rekk moo fi sës lii nag moom mii day lu mu fi fekkoon Sëriñ Tuubaa bi muy fakk pakk pàkk bii àndu ko woon ak kenn te mooy seen maam nun ñii ñëpp danoo gàddaay ñëw fi yéen ñii yéen a ko moom te yow nag la yàlla def ngay jëwriñ yoon wi te mate ko sëkk kon boo ñu joxee ndigal jëf rek moo fi sës li nga wax nag li ci mata bu gën a bàyyi xel mooy jéem a jub ak jubal ak def lu wér mooy sunu tono tey mooy suñu tono ëllëg ndax Cheikh Modou Moustapha sa waajur wa li mu daj ci titre foncier bii ngir jumaa ji taxaw diggam ak tubaab yi sëriñ Fallou lu ñëw sàmm ko yokk ko ànd ko rakkam ya nga xam ne ñoo sosoon ci moom ñu ñëw ba Cheikh Abdou Lahad sa waajur wa ñëw sàmm ko li mu ci yokk ak li mu ci def ba muy def décret ba kuy doomi suñ Tuubaa si ñëwoon nga ca ma nga ci tribunal ko ngir saytu suufu Tuubaa si loolu lër ñëpp la kon ñu def lii xam nañ liñ def ñoom mooy lan ndax xam nañ ki ko dénk Sëriñ Saaliwu ñëw yokk ci lim ci yokk lu kenn nattabliwul ñëpp jàppoon ne suufu tubaa jeex na te li fi nekk ci parcelle te ngeen jox ñu digal ñu natt ko fukki junne juróom ñett tegal na yoo xam ne nii ci at yi lañ ko natt kon yéen day mujjewu leen musa bi mu réer nan xam leen am xam ñeen am saytul ko ko def ci liñ bëgg moom ak ñum ko bokkal ñépp mooy di ci def lu leer te sax ci jub te sàmmale leen ko ndax ñun kat danoo gàddaayoon dong ñëw fi ñu ko doon miraas kenn du ci doon dañuy takkaat suñuy bagage rek te duñ ko def mukk danoo gàddaay dellu baaxu ci li ñuy ñaan daal mooy ngeen ñaanal nu nu sax ci seen ndigal te daw seeni tere te xam ne kat bu buñ ko defee moo nuy noppal tey moo nuy moo nopp ci ëllëg ndax yow kat ku la xam jafe na de xam la waaye ku la miin tuuti dana xam ne lu dul dëgg doo ci ànd ak kenn doo ci ànd ak doom ju jur doo ci ànd ak ub taalibe doo ci ànd ak nun ñii ñu jàpp ne ñoo la gën a jege kon nag nan maas ci dégg te topp te te ñaanal la nag nga yàgg fi loolu tax mu wér yàlla bi nga xam ne daal mooy maye fan wu gudd di may wér nañu nañu fi bàyyil ba ca kanam di kanam barki sëñ Tuubaa sama am loolu rek laa ci mënutoon a ñàkk a leeral di sant Cheikh Amadou Bachir nag bu baax a baax a baax ndax kàddu gi ko sëriñ bi jox te magam yu baax yi joxoon ko ko sëriñ bi ñëw fedd liwaat ko loolu nun taalibe yëpp suñu xol sedd na ci di sant tam nag ñi nga xam ne ñoo fi teewal bóor ndax sous-préfet bu ñëwee ay kilifaam yabal ko ndax dégg communiqué bi commandant brigade bi ñëw commissaire police bi ñëw ñooñu ay seede lañ ngir ndigal li ci sëñ bi joxe ku ci weddi virgule ñoom nga koy digaaleel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi leen di nuyu sëriñ bi di lay ñaanal yàlla nga fi yàgg te weer ak di nuyu Cheikh Bassirou Mbacke Abdou Khadre mi fi nekk tey teg ci nuyoo bi ñu ko teg ci loxo sëriñ am mi nga xam ne jottali ko njaboot sëñ Tuubaa gépp di nuyu administration bi fi toog muy monsieur le sous-préfet de Ndaam Modou Mbacké ak commissaire police bi nga fi bi fi nekk ak commandant brigade gendarmerie bi ak chef de village bi teew yépp te kenn ku nekk jógee ci gox te nekk fa te ñëw wuy si woote sëriñ bi ak délégué de yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal liggéey ba ca gox boobee ñu nekk di nuyu sëriñ Abdul Ahad Jaxate mi nga xam ne moom la sëriñ bi woote woon mu woote ci kàllaamam ba ñépp ñëw fii di leen xamal ne rek woote bi moom ndigal rek ko waral bi yàlla miy def defee lu ko soob seex Sidi Mokhtar yàlla yàlla na yàlla dolli leeram mu dénkoon liggéey bi Serigne Sidi Abdoul Ahad mii jox ko dëkk bi mu yor ko di yor ko ba ni ko Cheikh Basirou waxee yàlla def li ko soob ah sëriñ Serigne taxaa ñëw di Serigne Touba feddali li nga xam ne moom la fi fekkoon comme ni ñu ko baaxoo di def te mu xaw a yaatu ba ëpp mel ni dafa ëpp tuuti li mu doonoon nit nag su fekkee ne yàlla dafa dogal mu yor bi ñam ko séqate yilif leen war na leen a woo wax ñoom ba dootuñu wéy ci njort dootuñ xa dootuñ ne sëñ bi xëy na lii la bëgg wala nu sëriñ bi def te tey jii defe naa ne li boroom kër gi waxoon du ne fànn jarul woon ku ami bët ku amuti bët jarul woon dara ndax loo ko wan it du ko gis mhm. tey defe naa ne ku fi toog dégg wax ji te jóge cib gox ñëw fi boo delloo danga xam ne kenn dootu ne dañ ne la ak ak lu xew dootoo ko wax ndax di ngeen ci kalaamal Cheikh Bachir li mu leeral def naa ne leer nañ ndax moom miñ ko wax nee na nee na leer na ko nañ ci am xelam yàlla na ko doon na ñaan yàlla yàlla may ko aw làmmiñam mën koo tudd waaye def naa yàlla dimbale na ko ba yàlla tudd na ko te leer na nañ kon nag ñun ñi nga xam ne dégg rek ñu war tey jëfe muy ay taaj muy di taalibe kon dégg ngeen ko chef de village nag dafa am lu jar leeral ndax dafa yàlla dafa dogal suñu ko falee ci gox mu nekk fa dafa am responsabilité bu mag boo xam ne lépp lu fa xew ëllëg ki sibër chef du village bala ñoo wax kenn mhm. bu dee ca chef de quartier ba dañuy dem ca chef du village ba ne ko lii nu mu demee mu woo chef de quartier ba mu teg ca quartier ca gox booba ne ko ah lii ak lii ak lii ñoom ñaar ñoo am responsabilité leeral li xew muy lu mën a doon muy nit koo xam ne dafa ñëw dëkk ci quartier ba te kenn xamut fu jógee moo xam la mu fa dëkkee dafay jàngale alxuraan ci li gën ci nekkin yi wala dafa nekk ci safaan ba lu jubadi loolu responsabilité la ci yéen boo xam ne yéen lañ ko war a laaj yéen la ko war a lijjanti su ngeen ko gisee mu nekk ci quartier ba te du lu defu walla lu waxuwut wala lu defuwut ci yéen la war a jóge dem ci autorité yi autorité yi door ci jóg ñëw sàkk ci loolu nag responsabilité la benn boo xam ne ci chef de quartier ak chef de village ñu doore ñëw ci jëflante bi nga xam ne xew na ci jamono muy jëndante ak jaayante ndax kenn werantewul ci gannaaw ci jamonoy weer ci gannaaw rek sëriñ bi def na benn communiqué di leen leeral ne téréwuma ko jëndante de téréwuma ko jaayloo moom téréwuma ko jënd sa bëgg di dégg ngeen ko ci rajo yi miraaran lu baree bari loola it bëggoon lépp dekk ci dëgg te dox ci dëgg tey leer rek moo ko waral mm-hmm. mm-hmm. loola bëggoon lu leer a ko waral tey jii bëgg ko ngeen gindiku moo ko waral mu nekk mu teg sëriñ Abdoulahat Jaxate tey ci chef du village su Touba mu di leen leeral lépp loo xam ne nekk na ci titre foncier bi te luñ ciy def chef du willaasu gox ba mu fare na ko xam ñëw leeral ko ko bu lum yoon wu mu la ci teg nga tegu ci parce que responsabilité de su ko partagé wallaahi lépp loo xam ne ci titre foncier dëkk bi ci la aju ci lii titre foncier bi lépp luñ ciy def ko ko ci xam ne ni ci gox boobu nga nekk muy chef de quartier muy notable muy délégué de quartier war nga cee wax war nga ñëw leeral ko mu des nag li nga xam ne dafa nekk ci bitti dëkk bi te ay village yoo xam ne dañoo bokk ci commune Touba te bu bokkuñu ci titre foncier bi boo demee fu mel ni Touba Bogo boo demee fu mel ni Boubarel boo demee fu mel ni yeneen dëkk yi nga xam ne nekkuñu ci biir titre foncier bi te aju ci commune bi te nga xam ne suuf dañ ko fay jaar lijjanti léegi bi ma toogee nii rek am na ñu dëkk Bangaaj ñu ma wax ne da euh, dafa am kilifa goo xam ne ci beneen commune la ñëw na dugg ci seen suuf di ca def loo xam ne nii ñëw na ci commune ba di ko réclamer loolu it mu am lijjanti boo xam ne dafa dépendre ci commune bi boo xam ne bu fekkee ne kuy ab tool la wala ab àll wala am lëj moo xam ne ci diggante waa village waaye la yi nga xam ne bokkuñ ci titre foncier bi bu ngeen ñëwee ci commune ba danañu fa fekk koo ñoo xam ne danañu ko teg laaj leen nu mu demee ñëw leeral ko sëriñ bi ndigal lu mu ci joxe ñu joxe ko bu ñu joxee ndigal ñu àtte ko ci dëgg ñu seet la nga yaakaar ne mooy dëgg ñu àtte ko ci loolu mooy li nga xam ne moo waral woote bi moom lañ leen di leeral képp koo xam ne ab chef de village nga te dëkk ci te bokk ci commune Touba te bokk ci yoonu yo li nga xam ne moom la sëriñ bi yilif daal bis tey na nga xam ne responsabilité bi nii la demee ndax boo gisee ñu leeral ko bi ñuy woote ñu woo autorité yi su préfet toog nekkal fi préfet département nekkal fi gouverneur de la région nekkal fi ministère de l'intérieur maanaam ngir bëgg dafay ña nit ñi dañ leen di a dañuy dañ leen di lijjanti te bu lijjanti bu rombee ñaari bokk ñaari taalibe maanaam te lijjanti ko wuñ te joti wuñ ci sëriñ bi yoon na ciy sës moo tax ñu di leen colère sëriñ bi it bu fekkee ne dali ni mu joxe te su préfet ni mu joxe chef de village yi joxe ñu ko ndigal joxe ko sëñ la Lahad Diakhaté jox ko Abdou Lahad Ka ni mu leen joxe ndigal ni la joxe ndigal autorité yi nga xam ne ñoo ñoo fi nekk fii tey àtte kenn ku ci nekk lam la war a wax ak yow war wax wax na ko yow ba lépp loo xam ne soxla nañ la wala ñu war laa sitiir wala mu war laa lijjantiloo dana ñëw ne la ah dama lijjanti barab bee foofa nag yaakaar naa ne ñaari taalibe yu yu yu kenn ku nekk sàmmonte li ngay def te gëm sëriñ bi tey def ndigal sëriñ bi xëy na duñ fa àgg waaye ñu jàpp ñu nekkut ci loolu ba àgg tey nag bu boobaal la fa sës muy yoon dañ ko fay sësali kon nag ñoo ngi leen di xamal ne daal loolu moo doonoon waxi sëriñ bi loolu moo war loon woote bi sëriñ Abdou Lahad nag newoon na maa maane du teew ñu naan moo ne tey yéen ñëpp jàkkaarloo ngeen nag moom dégg ay waxam ci kalaamal Cheikh Bass Abdou Khadir maa ngi leen di ñaanal nag yéen ñëpp na ngeen ko ñaanal mu yàgg te wér te yàlla na yàlla nangu seen liggéey